feesoon dell ndax ñenn ki nga xam ne ñooy ay sénégalais ñoom dañoo amal seen jullit it jullit gi ki nga xam ne moo di imam Moussa Gueye moom moo ko daal di yaa jiite bokk na ci xutbaam poñ bi nga xam ne soxal na ko loolu muy wàllum jàmm ba tax na loolee sax ki nga xam ne mooy imam Mouhamed Ndiaye tamit di ko daal di yaa toftal. ñu ja wàcce jàmm ak salaam. ci dëkk bi. ci dëkk ak yërmandeem. ci jamono ji nga xam ne tension bi métti na lool fii ci Sénégal ki nga xam ne moo fi nekkoon jëwriñ jënk wàllum justice di maître Malick Sall moom ma nga woon ca bërëb ba ne daal Sénégal bu ci nekk rek war na cee tàmbalee xool boppam ci wàllum jàmm ngir loolee mën a daj ci Sénégal gi yëpp. gis nañu ci yeneen dëkk yi ñoo xam ne dañuy fooye tey gis nañu leen arrivé yàlla may nañu Sénégal yàlla moo ñu ko may yàlla bu la mayee yenn yi yàlla bu la may paix may na la lépp nañ ko remercier et la remerciement bu ñu mën a def ci yàlla mooy que effectivement ñu duggal be ci suñu xol. imam bi ci la ñaanalee réewum Sénégal ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi yeewoo ndax gis kat jàmm ci lépp xàcc.